ay fii lu nekk dina fi xew 100 pour cent buzz actuellement euh, à la demande générale ñëpp soxla ko donc mu nekk loo xamante ni umpale wu leen ni buzz kese la comme ni mu wuyew ci turam am na ay rubrique yoo xamante ni incha allah dinañ ci gën a mën a xuus expliqué leen carrément naka ak nan lay demee ak lan moo ko waral ak fan la xeweek nu muy demee mu nekk ci internet bi mbaa ci biir kër yi wala ci biir waañ beeg fépp ci mbedd bi alors xam naa rek. ci kanam incha allah na fi ñu gën cee bu baax a baax. ci kanam di nga ci ñëw ak ñi nga xamante ñoom ñoo ñuy seetaan waaye duñu ci wet benn yoon ndax ku wax buzz wax itam ñi nga xamante ni ñoom ñoo ëpp li ñuy def buzz semaine bu jot dañu ci ànd ak invité bu nga xamante ni moom moo gën a def buzz ci semaine bi bu tey bi nag ki ñu fi dalal yaakaar naa ni nekkatul ku nga xamante ni dañu mm-hmm. koy présenté ñi ñuy seetaan ndax moom uh, lu mu lu mu lu mu def rek buzz lay doon. Mm-hmm. dañoo gën ko xam ci uh, ketchup ñenn ñi di ko woowee boucher moom dama koy bàyyi mu nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan ketchup noo def moi je préfère t'appeler ketchup. bu la neexee yow la neex waxal. Hmm. waaw ketchup bi tomate la wala. non bii nag tuuti deret wala. Hmm. non yii non deret moom wóorul. Ah, ah moom tuuti tomate rek ak suukar ñu jaxase ko loolu. ayca nuyoo la lay seetaan. waaw salaamaaleykum waa adduna salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi siyaar àdduna bi yëpp di siyaar kilifa diine yi laayeen xaadir ñaseen waa kër Cheikh naa Cheikh Saad Buy di chrétien yeeg xam nga njaago yeeg ñëpp daal maanaam Sénégal yëpp xeet yëpp daal ñu ngi leen di siyaar bu baax di siyaar waa diaspora bi di nuyu waa seen TV bu baax ndax tamit xam nga télé bu mag la télé boo xam ne la ku ne rêvé ne di fi toog ñu lay interroger di la nuyu yow Nafi bu baax di nuyu sama xarit bi gi di nuyu waa Sénégal daal ñu ngi nuyu diaspora bi yëpp naan tey du yomb ndax 100 pour cent buzz moom su ma ko ubbee dina doon loo xam ne lu doy waar lay doon. lu doy waar lay doon li ñu tax a jóg nag encore une fois moo di informer ñi nga xamante ni xëy na seen euh, ay capacité yeggul ci dugg ci net bi xool li nga xamante ni moom la ëmb waaye tam lépp lu nga xamante ni lëndëm na ci seen bopp par rapport ak seeni i star wala seeni i célébrité ñu dalal leen fi ngeen ñu indi ci ay leeral balaa ñoo gën a sori dañ koy tàmbaleek suñu rubrique bu njëkk di lu web tey ñu ci ànd ak bigi nañ dem xool yi lu web bi wax tey ñëwaat alors web bi lu mu wax tey web bi wax na lu bari tey. parce que wax web ne internet. ah, ah. xam naa ni daal fi mu ne nii euh, ñi amul woon connexion yëpp ñu ngi koy wëri mhm. boo gisee taatu kër yi fees dell maanaam mhm. wifi bi la mhm. xam ni ku ci nekk yaa ngi wëri ji kaa boo mën a mais tey moom euh, lu web tey indi nañ ñeent yoo xamante ni tey fas yéene nañ ko faram-fàcce fii ci émission bi di 100 pour cent buzz donc actuellement dañuy njëkkee ak actualité phare bi mooy euh, rangu donc rangu ku ko xam xam ko ci Sen bi des médias mu nekkoon animatrice boo xamante ni tey jii da doon rangu en même temps gars yi di ko suivre nit ñi bëgg ko et tout et cetera. ñu toogoon ba benn instant gisatuñu ko xamatuñu woon ci lu mu nekk. Hmm. donc nit ñi doon ko seet comme ni ngeen koy gisee ni ci image yi. Hmm. nit ñi doon ko laajte anarangu anarangu donc mu defaat réapparition am mu nekk ci koo xamante ne tey jii on dirait deux personnes donc deux euh, univers yu ñu boole mais doo xam doo comprendre lan moo waral changement bi rangu bu ñu doon gis takk li am. Hmm. rangu bu ñu doon gis posé rangu ñëw wat bopp bi rangu changé accoutrement changé habillement am rangu nekk koo xamante ni mi ngi ci luxe mi ngi dawal oto mi ngi def leneen ak leneen léegi nag mu nekk koo xamante ni dafa indiwoon woon bu rëy ci réew mi à part yi nga xam ne dañ koy dégg mu koy def aussi euh, polémique bi nekk loo xamante ni moom euh, dafa def euh, benn soirée. Mhm. boo xam ne affiche bi boo gisee image bi noonu di daw moom moo ci nekk mais mu solu benn tenue boo xamante ni nun on di que Sénégal c'est un pays laïque. Mhm. mais pays boo xamante ni la aussi 90 pour cent de musulmans pour cent de chrétiens d'après les calculs que j'ai eu à voir. Mhm. mais aussi que peut-être am na démocratie en même temps mais lu waaye neex def bi mi ngi nekk loo xamante ni nit ñi ñu ngi koy jël yamuñ ci discours ñu ngi koy jëfee alors boo gisee image bi aussi sa xel dina dem ci loo xamante ni da nga koy gis américains yi daan ka def. Mhm. ñu koy sol et tout mais entrée soirée bi c'était à deux cent mille loolu moo choqué nit yi. pourquoi mhm. deux cent mille francs lu ñu koy defee entrée bi cher na et tout et cetera mais am ñoo xamante ni. numéro bi dañ ci woote réservé et tout même la elle a confirmé que soirée bi am na d' autres disent que non soirée bi amul. parce que man ci samay information soirée bi amul. waaw d' accord donc soirée bi am na ci ñoo xam ne dañu wax amul ñi ne am na mais def nañ investigation ba xam ni que soirée bi finalement ça n' a pas eu lieu. que ni am na ñoo xamante ne nee nañu waa dig dañ ci teg loxo histoire bi coow bëri na euh, brigade des mœurs ñu ngi ci doon wax ba ci ki nga xamante ni moo di Makhtar Gueye bu Jamra donc moom aussi am na benn affaire boo xamante ni wax na ko ci mu lancé ko ci lancé appel ne neexu ko affaire yi am na et tout et pas bien ba muy indi coow rangu tam def live njëkkoon na def live di expliquer Sénégal taat mooy lan luy taat waxuñu war wax taat moom elle est libre de de 10 000 abonnés doom deux pièces et tout coow li yokkal ko moom mu nekk ci soixante mille presque abonnés. Mhm. actuellement te gën a yokk ci même mais en même pas vingt quatre heures loo xamante ne dafa garaaw pour te dire que internet dafa prendre le dessus de tout le monde actuellement. Mhm. donc mu nekk loo xamante nit ñi euh, ñii rafetlu nañ ko ñii rafetlu wuñ ko mais dafa mel ni coow li mhm. moo ëpp parce que moom elle a confirmé moom. xam naa ab Makhtar Gueye moom mm. séq nañu ay euh, affaire et très rapidement rek bi gis naa koy démb mm. itam mu def euh, ab live di xamle ni mm-hmm. euh, moom am na lu mu seexoon ak maam Makhtar Gueye dem na mm-hmm. bay wax ni sax da daan ñëw këram mu koy toggal ay suppu kànja ak mm-hmm. yàgg na fa fekk ay góor jigéen mu su ko kaas mu mel ni ñu ci bari jàpp nañ ni dafay wax loolu pour tilimal peut-être deru maam Makhtar Gueye waaye itam ba ñu annoncé plant bi ba tey moom rango dafa daal di prendre la fuite est-ce que c'est des informations avérées très rapidement def na live moom ci boppam wax na ko expliqué na sol na ne moom euh, ki nga xam ne moo di Mame Makhtar daan na ñëw këram waxtaan nañ ci et mais lan moo doon xew ci biir kër gi est-ce que c'est vrai que mhm. dëgg la parce que dégguñu version wu Mame Makhtar Gueye on a entendu que ni moom da doon def interview moom Mame Makhtar bu nekk Jamra mhm. di wax ni euh, mhm. euh, ko moom aussi di répondre daal di ne moom aussi am na lu ko metti et te kii wax moom da daan ñëw moom di mm-hmm. des saafonteeg moom ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni euh, du rafet ci déggin xam naa Instagram moom bu ngeen fa demee di ngeen gis li nga xam ne moo di xew ba a mm-hmm. a wóor insha allah dinañ ko indi ñu mm-hmm. waxtaane ko bu baax beneen bi lu mu ponk bi ci topp ñu massawu rek euh, waa kër Aziz Ndiaye nga xamante ni moom Aziz Ndiaye dafa ñëw ñàkk kii di di Mam donc actuellement décès bi ñëw surgir suñu kaw ñu koy euh, ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jóge fii ci àddina parce que metti na aussi daw daan dégg ñu naan Aziz Ndiaye ne Mam Binta donc boo nee Aziz Ndiaye ne maam Binta ne euh, aussi deuxième femme bi tam ñu koy euh, massaw bu baax muy Miss mm-hmm. Ndiaye euh, ba suñu invité bi tey sax demoon na ci li nga xamante ni moo di dëj bi donc mm-hmm. Aziz Aly Ndiaye de ñu koy au nom de toute l'équipe de 100 pour 100 ak waa D-Média ak Sen TV ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax a baax mm-hmm. alors bi ci topp mooy benn rumeur boo xamante ni grosse rumeur waaw Euh, rumeur bi loolu mu ëmb. alors euh, rumeur bi mooy nekk koo xam ne benn animatrice de renom. fii ci réew mi. Mm-hmm. Mm-hmm. dafa nekk di seq ak benn euh, waykat bu mag a mag a mag fii ci réew mi aussi animatrice bi on a entendu dire que ni moom dafa nekkoon en état de grossesse. Mm-hmm. donc coow li guddoon trop coow li commencé surgir nit ñi di ci wax et cetera ñi ko yegoon nekkul ñu bari léegi mu mujj gi mu daal di génn dëkk bi. dem beneen dëkk ba kenn déggatul affaire grossesse bi wala dara parce que elle avait reçu des menaces venant xam ne mooy artiste bu connu réew mi. donc xam naa ni euh, peut-être avec le temps dinañ gën mën a am histoire bi nu muy continuer comme avec le cas de Rangou aussi parce que coow li tamit nekkul lu ndaw mhm. <laughs> ki mu ko seqal aussi du ko ndaw xam naa rek il faut préciser que loolu exclusivité la fii ci 100 pour cent benn site internet bindagu ko bindagu ko mhm. alors mu nekk loo xamante ni te xëy na dañuy filtrer sax mhm. mais euh, information yi ci am romb na xëy na li nga xamante ni moom nga nekk di di wax nii parce que nekk na loo xam ne dafa délicat parce que baaxul ci carrière artiste aussi baaxul ci Euh, carrière animatrice te animatrice bu doon ku ndaw sax ñu mën a wax. Mhm. woykat bi aussi même chose. Mhm. mais xam naa dinañ gën a gën a mën a waxtaanee loolu xam naa bu ñu demee ba gën cee am confirmation affirmation venant des deux personnes loo xamante ni tey jii peut-être suñu culture mayuñu loolu bien vrai que am na mi ngi existé ba léegi fii ci réew mi. Mhm. mais euh, ñi ngi bàyyi wàll gumba ak euh, wàllentam ñu xool fu muy mujjee. Hmm, incha mujj wala fa ah, du fi yem nag xam nga actuellement nii nii nii am na benn taasukat. boo xamante perte de poids excessif laa mhm. ko mën a tuddee excessive excusez-moi mu nekk euh, njoletaal Mm-hmm. de nit ñi dafa nekk ku ñëpp bëgg. Mm-hmm. elle s'habille bien elle est classe ba pare dafa nekk koo xam ni dafa am tenue ci scène. Mm-hmm. maanaam lu mu sol nit ñi dañ koy reprendre wala mu nekk taasukat boo xam ne dafa jege nit ñi trop mu defoon absence am ci milieu bi nga xamante ni moo xew nii milieu musical bi milieu professionnel beeg yëpp ñu jékki gisaat ko donc am ay rumeurs yi wax ni que elle a fait la chirurgie esthétique ñeneen ñi naan dafa dem defi régime et mais man moom quand j'ai vu la personne je me suis na nekk dëgg parce que koo xamante ni. ku tolloon ni gi dem toll ni Ketchup xam nga kooku am na foo jaar donc <laughs> euh, xam naa njore moom du ay xeer du ay lance-pierre et tout et cetera mm. mais daal kaa bi daal i émission dinañ ko fi dalal da mhm. da da koy ràmb <laughs> ngir xool ndax réellement te am na sax moom bi mu def am na nu ñu ko tuddee de am na nu ko tubaab tuddee. Ah, boobu mooy liposuture brésilienne. boo xamante ni da dindi graisse daal di koy remplacer def ko ci sa beneen partie yaram mooy euh, grossissement. de parce que nag njële kay fi ne nii moom wax dëgg yàlla mën naa yeewu di dox di dem parce que xam nga biir moom ku din ku mu denc man sama <laughs> lii bu ma tàggoo woon bindee ko ci man man ma am lu ma gënal daal dëgg yàlla mais euh, ci ci même voice ba tey eh, Ketchup xanaa da am problème mu ndigg nag da ngay toog bu baax non man mën naa toog na ah toogal bu baax balaa ñu lay jiñ balaa ñu lay jiñ chirurgie bi nag <laughs> da ah, na naka nga gisee rek rapidement actualité bi nga xamante ne xëy na moom la site internet yi xëyee tey waaw actualité bi moom xam Sénégal moom fu nekk nii man damaa xamatul ban façon Sénégal la. Mm. Sénégal boo xam ne ay kilifa maa ngi nii man maa ngi jóge États-Unis ñëw fii trois mois maa ngi fi du sax bëgg a ñibbi. ndax mhm. Sénégal bi ma xamoon. xam Sénégal neex Sénégal kilifa diine yi bari fi ñuy ñaanal doo fi dégg guerre doo fi dégg problème doo fi dégg dara fitna amu fi. Amérique nga xam ne dangay dox sax di booru di bañ bal perdi dal la wala dara fii amul loolu da ngay doxee nu la neexee tey bu fi ñëwee moom kenn du xam fu mu jóge mhm. xanaa ñaan yàlla rek yàlla suturaal ñu jàppale ba yu bon yooyu di fi ñëw rek yàlla dégagé waat leen ñu dem fañ jóge woon ndax yii moom ñun xamuñu ko daal ñun mhm. dëkk bii moom dëkku diine la dëkku lislaam dëkku julli dëkku mhm. xam dëkk boo xam ne nag ñoom maam boroom Touba ñaseen yi xam nga Baye Ñas xam nga kilifa yooyu maam alaaji maa dañ fay def yu rëy mhm. dañ fay def yoo xam ne ñun amuñ si lu leen war a fayee lenn rek la topp seen tànk di julli mhm. suñ mënul lépp sax ñu jéem mhm. waaye yu bon yi moom yàlla nañu ci yàlla musal ko mhm. waaw loolu euh, yow je pense que sénégalais yi dootuñu dootuñu fi nekk sax di leen présenté kan mooy Ketchup ñu gis la nga nekkoon mbër fan yi ñu gis la nga jege lool ki nga xamante ni moom moo di Papa Diouf gis la itam ngay def yenn ci ay yëf yu nga xamante ni xëy na lëndëm na ci bopp sénégalais yi est-ce que mën nañu xam rapidement Ketchup euh, xaal bi nga xamante ni xëy na moom ngay faral di àndal buñ lay gis ci seeni pap Pape loo tay la pour bësaale wala lu nga xamante ni la xëy na dafa ancré en toi wala ci Pape nga amul sago ba boo jàkkaarloog moom daal euh, di di daanu ay yées waaw loolu dama ciy leeral bu baax mm-hmm. ndax tey àdduna dafa doon loo xam ne nit ñi yenn saa yi danga naan duma am jot di leen leeral mm-hmm. ndax ku nekk ngi am sa vie privée booy dund war koo lijjanti te lijjantiloo ko mm-hmm. waaye man yooyu duma ko def damay leeralal ñëpp ndax am na ñoo xam ne tey dañ lay bëgg trop di bëgg loo xam ne day nekk gànnaay ci ñoom bis bu leen keneen koo xam ne du ma ne laa bañ waaye keneen koo xam ne di la diingat wala di am lu muy wax ci yow lu bon ki la bëgg am gànnaay bu mu ko tontoo fekk loo xam loolu ci man la jógee moo tax damay leeral rek fii maanaam Sénégal moo tuddee tëddee noonu man ku ma xam-xam ne doxuma ci ay affaire u buzz di wane sama bopp bañ naa ko ba vidéo yi may jël Pape Diouf sax duma ma ci wane sama bopp ànd naa feek kilifa bu ne sëñ Modou Karaak ñëpp damay vidéo mais man vidéo bi sax du ma ci feeñ. Mm-hmm. ñoom rek ñoo ciy feeñ. Mm-hmm. parce que wutuma buzz moo tax su ma doon wut buzz parce que vidéo yooyu fu ne lay dem te dañuy du ñu xam sax ku koy vidéo te man man lay doon mais musique sénégalaise dafa laaj rumeur tey fii loo fi tuddul rek mu fay. te man li ma yéene Pape Diouf loolu laa yéene yeneen artistes yëpp. Mm-hmm. mënuma bañ yeneen artistes yi. loolu mënul nekk. mais justement ci ni ngay demee nii ni mu ni mu ni mu ni mu parce que ñu ci bëri jàpp nañ ni amoo ci sago dañ ci boole ay wax yu ci bokkul. Mm-hmm. gis naa la peut-être bi Pape Diouf génnee album bu mujj bi euh, wala bi muy tàggoo ni génn na Prince Art ni nga xamante ne noonu nga ñëwee fëgg sa dënn yaa fi mën yaa fi nekk est-ce que yeneen artistes yi du la xarab ci ni nga xamante ne xëy na noonu ngay noonu ngay demee ak benn artiste tout en sachant dañu fi bëri ñoom. yeneen artistes yooyu. Mm-hmm. bu ñu toogee seen néeg yi man maa la wax ñoom ki sañu weet dinañ xam ni man bañu ma leen te awma benn xolu ki mhm. mais aar bi moo mel noonu tey Pape Diouf la ma yàlla séddee mhm. Pape Diouf kenn du ànd ak moom di wax lu bon wala di def lu bon man ambianceur laa mhm. sama artiste laay yëkkati moom laay joobal tey ni ma mel ci Balla Gaye noonu ni ma mel ci Pape Diouf noonu laa mel ci Balla Gaye tey su ma waxee ci Balla Gaye waa kër Modou Lo yi mer te pourtant Modou Lo man ñoo bokk famille Modou Lo tey ñi muy fréquenté ñooy samay kilifa ay Matar suba teel ay Badara Gajaga ah kër kër Badara Gajaga lay nekk kër Matar suba teel lay nekk ñuy reerandoo di def lépp Modou tey moo la gën a xam ne man bañu ma ko mais tey li may def man yokk seen promotion la sax ñoom tey ñu leen di bàyyi xel am na mbër yu bari yoo xam ne déggatoo leen parce que déggoo ku leen diingat déggoo ko wax ci ñoom dara man awma benn intention di benn waykat lu bon wala benn mbër damay def ambiance damay bëggee bul fàttali man dama doon def ay signature contrat te sama adversaire bu koy waaj a dóor te loolu yëpp dara safuma ci. Mhm. pour bëggal sénégalais yi la rek. Mhm. pour bëggee la rek mais Pape jouf ak yeneen artistes yi ñoo yem. Mhm. ñoom la yàlla tracé yoon bii mu doon natt boo xam ne yàlla da ko teg ñu war cee jaar tey ñoom ñëpp ñoo bokk benn group ñoo bokk lu ñuy wuti tey Pape Diouf li mu war a am kenn mënu ko ko xañ. beneen waykat lu mu war a am kenn mënu ko ko xañ. moo tax kenn du yaakaar ni ku yaakaar ni damaa bañ artiste wala dara rek tey am naa droit far fu ma neex. Pape Diouf laa faral mooy sama artiste. mooy sama mag mooy sama lépp mais ku ma tegal kaamil ma teg sama loxo yeneen artistes yëpp dama leen yéene jàmm. ba ñu nañ ma raw man. Mm-hmm. moo may gënal ndax. am nga ci am nga ci amul solo. Mm-hmm. mais tey mënumaa. bu bu ma ne mënu ma ne Pape Diouf laa bëgg ba pare di noppi wala di yolomal ak yo yooyu duma ko def. d'accord après euh, dama gis fan yële nga def ab sortie ci site internet boobu la di Sénégal vraiment nga wax fa lu la neex ba dégg naa après sax ay menaces daf cee toftalu il paraît que ñu ngi lay wër pour dóor la pour def la ay yëf est-ce que c'est des rumeurs qui qui qui s'avèrent vraies. man moom kenn mënu ma wër ba dóor ma. mais la nga wax ca Sénégal ba tam foo ko tekki ceeb nag. Sénégal lan laa wax waxuma lu aay. wax nga ne de. déedéet Sénégal damaa jël micro. ah léegi lu mu wax Sénégal bi rappelé ñu ko. moom day ba mu demee ci Sénégal bi bañ ko laajee def ne Pape Diouf day way ci ay octave. Mhm. te juuf Diouf du wayandoog benn artiste journaliste bi ba mu lay laaj turu Wally Seck la la wax te ñeme woo ci jaar. Mhm. bul wax loolu man Pape Diouf mënul wayandoog benn artiste ci àdduna. Mhm. maanaam mënul génnee single ak Wally non mënul. da nga bëgg a wax ne daal li muy woy benn xale woy ko moo leen dàq woy. ci gàttal mënul nekk loolu mënul. waaw loolu ah, yaa ko confirmé waat loolu mënul nekk maanaam Sénégal. Mhm. Sénégal à part Youssou Ndour. Papa Diouf a fi dàq xam nga Youssou Ndour Pape Diouf sax woyandoowul ak moom. Mhm. cër boobu la artistes yu ndaw yi. di jox Pape Diouf. yow loolu kon yaa ko maanaam à part Pape hmm. boo génnee Youssou Ndour Pape Diouf moo fi ne ñi ci des yëpp. dañuy xaar artistes yu jàng lañ yu ñëw. d'accord mais lii est-ce que du la créer ay noon nag moo tax ñu lay. menacé de ñoom nee nañ fi ñu la gis dañ lay rey noon moom mënul ñàkk parce que dëgg moo neexul. Hmm. mais ku wéet ci lal tëdd nelaw di nga xam ni Pape Diouf woyandoowul ak kenn. mais Pape na génne single ak Wally Seck ñu def yàlla na ko jàll yàlla ak yonent bi ak Seydina Muhammad def. mais seen genre seen genre gi est dinañ faciliter euh, euh, boobu. duo gaaw a am non parce que yéen nag quand même tant que mal kitchen. Mm-hmm. da ngeen di faral ñu ci bëri dañuy faral di wax naan seeni wax day faral di am ay gaaruwaale. Mm-hmm. da di diviser pour mieux régner. Mm-hmm. yéen a tax peut-être ñaari camps yi jàmm ji nga déglu sa interview euh, Sénégal xam ni vraiment c' est des choses qui qui de l'huile sur le feu vraiment. très sincèrement loolu la Sénégalais man nag waxuma ko. loolu amul mettre de l'huile sur le feu loolu. wuy ma gis nga yàlla moo bind jaam bi. te dafa am ñoo xam ne xamuñu tricher. ci ñooñu laa bokk. lu ma bëgg day fës. Mm. Pape Diouf je trop te man ak moom ba àdduna du tukki. du jeex. lii man maa la ko confirmé la. Pape Diouf bu demoon banaan daf may ba. biir këram laay fanaan di fa def lu ne. pour mu bañ maa ba. wala fu mu génn ma topp ko. man moom ma yàlla ci àddina bàyyeeti Pape Diouf ci àdduna. wala may ànd ak keneen ku dul Pape Diouf. su ma ko nammee def faatoo ma ko gën. lii man maa la ko wax tey fii. na ko ñëpp noté. dara mënu maa jaxaseeg Pape Diouf ba ma bàyyi ko àdduna àllaaxiraa di ànd ak keneen. dama ci fier taxawal léegi nag dafa am lu ma lay wax. Pape Diouf sama papala sama xarit la sama lépp la. mënu laa jur nag. léegi nag non dama ko sama mag la rek. waaw sama lépp la maanaam dama ko def kilifa. kilifa. Mhm. papa bi ma am je suis fier. Mhm. sama papa gën ci réew mi. Mhm. sama yaay gën ci àddina. waaye papa Diouf ñu ko bàyyi kenn gënulu ma ko sama xarit la sama lépp la sama papa la ma papa woo ko tey di nga gis sa mag nga kilifa woo ko ne ko sa papa la. yaa ngi man noonu laa ko defee mag def kilifa. d'accord euh, euh, euh, Biggi xaaral ñu dugal suñu suñu suñu beneen rubrique. après nga ngay continuer ak Ketchup. Euh, snap de star wala buzz de star wala statut de star yi nga mhm. xamante ne xëy na ñoom ñoo gën a def buzz ci semaine bi nañ dem xoolandoo ko ñëwaat ci plateau Aïcha bi gi Ketchup euh, a ngi nii. Ketchup man waxal Wally Seck. non mais lu tax nga bëgg ma tuddal da may déglu ma la benn. non dama lay laaj dama la laaj lu yomb Ketchup waxal Wally Seck. mais mais mais yow man dégg naa da nga waat ni doo tudd turam. non astafurlah. waxal lan mais mais mais man. fu mu nekk nii. Mm-hmm. man ci li may def ci li ma mm-hmm. nekk. Mm-hmm. dafa dama nekk ci benn anecdote boo xam ni. anecdote anecdote ci ci ci ci milieu showbiz. boo xam ni Pape Diouf rek a ma ñor Pape Diouf rek laay tudd. non kooku suñu sama papa la. mën nga moo tax bañ a jaar ci turu Wally Seck dafa toog fenn tiim Kaamin waat ne lu tudd turu da may déglu. nga xam nga tam tey gi weddi xaw ma nu ko wolof di waxee. <laughs> weddi tuuma non weddi tuuma am na tuuma wuy ma Pape Diouf. Mhm. moo ma ñor ci showbiz. Mhm. te tooñ baaxul. waaw Pape Diouf laay tudd ci lu ma nekk ci àdduna. Mhm. muy way beeg muy lii man duma ma du ma tëdd si di xalaat beneen artiste am na. man pour mu nekk nii Pape Diouf laa visé. Hmm. parce que moom moo mën a way. ay wayam mais Ketchup nii dégg naa da nga am problème ak Wally Seck. waaye man dama am ak kenn. man yow ku gisee xam ni man damaa am jàmm waay nag am salaam waay. yow sans par ah, exemple. soo ma gisee nii xam ni man damaa am jàmm waay. am ah, salaam man dama tooñ waay man de ba ba ba balaay bigi di la laaj. dama hmm. jàppoon ne ay rumeur la mais comme nee nga doo jaar. yan rumeur rumeur la jaar ci turu. dañ ko menacé di ko waay de dóor kan moom mooy dóor waxal turam eh. dinaa wax benn affaire. waxal waxal fi nga dëkk ñu fekk si la. man géejawaay laa dëkk. ci fan. marché Ndiarème Baye laay. Mm-hmm. kenn rek laay ragal. Mm-hmm. yàlla sunu borom. Mm-hmm. Seydina Muhammad. Mm-hmm. Serigne Touba Xaadimu Rasuul. Mm-hmm. ñii laa ragal. waaw mindeef ñemewul taxaw sama kanam naan daf may accuser lenn. wala mu may dab wala mu may def doxewu ma noonu sax. waaw waa li fekk lu mu la def këccëg lan la. lu yow kenn damaa loolu yow looy jóobaay turu wax man man aw ma ak moom problème. man mii damaa am problème. waaw maa ngi ne waa li fekk waxal. mais aw ma problème non damaa amul lu may wax ci moom parce que nekkul lii nekkul pour moom. ah pour man maanaam apporter lu la dara yow. non du waxumay apporter. apporter wu ma dara ak apporter wu ma dara waxuma ko maanaam lii nii ngeen ma invité nii. Mhm. du pour moom léegi loolu may laaj da ngeen ma koy laaj ci samay nit may wax ci samay nit. waaye léegi ci say nit ci say laaj lu waral ngay xarab yeneen artistes yi di yëkkati paap ak paap sa première vidéo bi ma seetaan moo nekk euh, en même temps di ngeen ko gisaale en même temps mooy mhm. sa jooy yi bi ngay déglu paap di jooy di yuuxu ñu ne déetewaay Paris Dakar son international amul sabar amul dara gisoo fa sax danseur nga koy sabar mais loolu la nga fekk Pape ci CCS bi xaw koo rey. vraiment loolu yëpp amul daf koo dàmp ah. xam nga yaa ngi may wax yoo xam ne damay neex nga ma koy wax. Mm. parce que musoo nga musoo ma ni. Mm. dem nga fii def lii pap démb dem nga fee. Mm. def lee kee. loolu zem. Pape Diouf zem trop su ma ah, yow daal da gis ni. artiste bu nekk ak snapper snapper am. non pas snapper gis nga nit ki boo ko bëggee. da ngay yem ci moom di ko dooleel di féexal xolam. luy sa liggéey loolu Pape Diouf. maa koy sénabal maa koy defal lépp. di nga ko defal keneen. mais Pape Diouf bu tëddee nelaw xelam day dal ci man. Mm. ndax xam na ne àdduna du neex ba ma dem feneen. Mm. di fa taxawaaloo wala mu koy tuutal wala di ko yàq. yaa ngi jaar waale muy wax yàq wuy fi fii. Sankara Mbaye fi nekk. wuy ma ñaaxalañ loo moom. man du ma snapper. Mm. lan nga kon. man du ma snapper. lan nga man. ah mais ci snap bi lañ lay gën a gis